Euh, dama bëggoon rek préciser une chose par rapport ak huis clos bi nga xam ne assemblée nationale moom lay liggéeyee. Mhm. yaakaar naa ne mu ngi bëgg a yàgg sax huis clos bi parce que bi mbas mi duggee biir assemblée euh, yàlla dogal na dafa yóbbu suñu benn collègue. Mhm. muy ndem si yàlla honorable député Marie-Louise Diouf ñu koy ñaanal yàlla gën a yokk ay leeram. Mhm. depuis boobu la bureau effectivement je membre du bureau s'est réuni c'est pas en plénière la ñuy décider ndax dañuy wax. Euh, dañuy def huis clos ou pas le bureau de l'assemblée c'est en quelque sorte le gouvernement de l'assemblée donc foofu la ñuy waxtaanee ak les présidents de groupe ak ki nga xam ne moom moo représenter les non inscrits pour ñu xool ak le président de l'assemblée ak les membres du bureau ñu xool nan la ñuy liggéeyee par consensus par consensus lañ ko jëlee woon ça fait presque trois wala quatre mois ñu ngi liggéey à huis clos leneen li mooy par rapport ak li nga laaj muy lu am solo parce que déclaration démb bi. Mhm. dafa wuute ak déclaration bi nga xamante ne Ousmane Sonko defoon na ko bi ko aji Sarr porté plainte ñu war a xëy jublu ca liggéey ba bu ko bu ko nit ñi fàttalikoo. comme ni mu ko rappelé sànq euh, wala sunu euh, frère bi moo ko wax Omar dafa ne woon bu ñu lever immunité parlementaire am 9h 9h05 dina wuy ci foofu moom dafa ne procédure parlementaire lañu doon wax. la euh, leader am wax déedéet. déedéet waxul loolu. discours baa ngi fi mën nañu ko génne dafa wax procédure d'enquête sur la plainte que ça soit très clair jàng nañu xam nañ li xew mën nañu liir bu ñu mantul bu ñun ñi ñi jàngul am nañu xel du ñu ay dof wax nag bu dofee Aïcha ka koy déglu mën a wér loolu mooy dëgg moom Ousmane dafa ne procédure d'enquête bi sur la plainte su fekkee ne jaarul yoon moom foofu la waxee waaye mu teg ca ne bu ñu levee sama immunité parlementaire ba tey kàddu yu du man mhm. du yow du moom mii leader am moo ko wax muy Ousmane sonk à travers une conférence de presse boo xam ne daanaka jël na une heure trente pour wax rek ne moom dem na ca mbir ma xam nga lan lañ bëgg mooy réew mi dafa am yoon su fekkee ne ñëpp dañoo am attitude bi nga xamante ne Ousmane Sonko am na ko vis à de la justice vis-à-vis des institutions de ce pays yaakaar naa ne waxatuma la justice moom day disparaître parce que bu fekkee képp ku ñu woo ci benn mbir justice woo la ci nga ne duma ma wuyu ji foo ko teg Ousmane Sonko sénégalais la loi yi ci réew mi du pour ma Samba du pour ma Demba kenn neewu ko woon demal ca salon ba bu ma déggee mu ne complot complot Aïcha day fekk mm-hmm. ñu comploté sa ginnaaw xam nga kan moo complot Ousmane Sonko. Hmm. moom moo comploté boppam. moom ci boppam moo comploté boppam ndax moom moo yóbbu boppam ca salon ba ba léegi. mais c'est pas interdit non c'est mais moo ko fa moo ko fa dem ba moo ko jural lim ko jural. les députés de la majorité man je suis très fière d'appartenir au groupe de la majorité Benno Bokk Yaakaar ñun dañoo demoon élection hmm. samp suñu ndënd ñu fal ñu falin bu rafet. ñu nekk tey di siéger au niveau de l' assemblée nationale. Mm-hmm. cër bu ñu askan wi jox la. ñu ciy sant yàlla di delloo delloowaat njukkal askan wi. le fait que ñu nekk assemblée nekk comme député di défendre li nga xamante ne mooy ñu ñu fal. leneen li ci des mooy cette affaire. est une affaire privée yéen yéen a ko jëlee affaire privée indi ko affaire politique parce que yéen li xew ci mbir mi bëggoo leen ko wax. la ca xew ak la ca am ñun li ñuy xaar li ñuy xaar li may xaar man sax en tant que di ko xaar ay may ma ma daaneel foofu rek c'est une affaire privée mais qui concerne quand même euh, euh pas n'importe qui Ousmane Ousmane Sonko Ousmane Sonko quand même euh, ay euh, Aïcha boo dee ne boo xamee xam nga nit mm-hmm. damay dégg mag ñi naan nit dangay xam sa bopp mm-hmm. nit dangay xam sa bopp su fekkee ne yow da ngaa xam sa bopp xam ne fii bu ma fa demee lii dina ma fa fekk yaakaar naa ne waroo faa dem parce que encore une fois ba léegi kenn neewul Ousmane Sonko jógal 21 heures nga taal sa oto bul ànd ay garde corps nga dem fële nga xamante ne nii couvre fa jot na naam sax yow député nga war nga circuler mais yaakaar naa ne salon de beauté ba sax war na tëj ay buntam te c'est ça la vérité pour pour terminer rek par rapport ak ba tey la procédure. gis nga ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ci wàllu démission bi bi ñuy lever immunité parlementaire bu Khalifa Sall ancien maire de Dakar Mamadou Diop Decroix ak le président du groupe Liberté et Démocratie mhm. muy le ministre euh, Madické Niang dafa démissionné woon te bi mu démissionné terewul commission ad hoc ba dafa continuer woon liggéeyam mhm. ba rapport jot ñu àgg sa bésub lever immunité parlementaire ba ñu voté lever immunité parlementaire u Khalifa Sall donc le fait que des deux, deux députés ñu bokkoon ci commission ad hoc démissionné yaakaar naa ne warta yàq dara ci liggéey bi te encore une fois. Mm-hmm. la procédure a été respectée. comme ni ko suñu règlement intérieur waxee. daañ daañ ci ñëwaat alors euh, justement Pape Makhtar on parle de procédure on parle euh, euh, encore une fois de cette sortie de Ousmane euh, Sonko hier gis nañ ko mhm. nga jàngatal ñu discours am en quelques secondes ça serait bien déjà ak yeneen affaire yoo xamante ne am nañu ko fi soulever muy peut-être appel à insurrection mais également joxoñ yi mu joxoñ ñi di magistrat waaw d'accord mais laata may ñëw foofu rek comme ñun aussi bien que ay député mais règlement intérieur xool euh, je crois que tey euh, commission ad hoc amul euh, amul ak benn rapport ak li nga xamante ni mooy commission d' enquête parce que commission d' enquête si nañ lay naan da am obligation de réserve mais commission ad hoc amul fenn foo xamante da ngay am obligation de réserve du tout du tout amul amul député waaw ñun député la soxlawuñu doon ko ñun d' accord ngeen jël ko si jàmm yàlla jox nañu ko te ñu mérité ko nag alors d' accord commission commission ad hoc yow la ñu war a dal Euh, commission commission commission yaakaar naa ne amul fenn foo xamante dañ fa bind que ni. Euh, ñi nga xamante ay député nañ dañu am obligation de réserve amu fa. beneen bi aussi ratification maa koy dégg mais loolu aussi bokk ci li nga xamante dafa nekk ci règlement intérieur assemblée nationale parce que boo xoolee commission bi nga xamante moom nañu def sur pied euh, article bu règlement intérieur assemblée nationale amul fenn fu mu ni da ngeen def commission règlement intérieur. loolu euh, dafa am madame Sanix yàgg nañu di lever immunité parlementaire balaa onze membres yi dem di <laughs> siéger. il faut que l' nationale ratifie leen en plénière. doo député mais loolu la règlement intérieur bi wax encore une fois. comme doo député nag da maandu kon ci wàllu député yi. ak wàllum liggéey. je suis désolé parce que xam nga li wax nii du question de maandu wala ñàkk. du mais du ma ngeen wax loo xamante ne nii règlement intérieur bu ñuy wax nañu wax li am rek honorable à vérité laissez-moi développer mon point de vue qui se qui se qui se sur le règlement intérieur règlement intérieur bi dafa carrément que si article 34 si nañuy mettre sur pied li nga xamante mooy commission ad hoc te article 34 bi mettre sur le pied euh, commission ad hoc waxul fenn que ni avant commission ad hoc bi lu ñuy wax wax Covid Covid Covid xanaa au moins RTS ak benn caméra war nañ mën a euh, euh, assister seen plénière ba nit ñi xam au moins que. lii di xew ci biir lii di xew ci biir plénière ñu jàll ko en direct lii di xew ci biir lan la et lan moo fa xew parce que aussi bu ñuy wax immunité parlementaire. mais mais non non. mais mais léegi ce sont les présidents ce sont les présidents qui l'ont décidé en commun. bu nekkee président ñoom ñoo ko décidé. c'est le benn bokk yaakaar euh, ça va être compliqué madame si. Ah chaque fois bu nekkee da ngay da ngay dagg nit ñi te bu ñu alors li may li ma li ma li may li may wax rek. li may wax rek tey jii mooy en fait que RTS tey amoon na possibilité mën a teg li nga xamante ne moom mooy li xewoon ci plénière bi en direct parce que euh, li nga xamante mooy unité parlementaire ku la ko jox mooy askan bi askan bi moo jël ni kii de dañ koy bëgg sàmm parce que daf ñu daf ñu war a liggéeyal kii waruñu ko mën a bàyyi muy dem ci noonu te amul benn protection donc protection boo koy dindi war nga mën a jàkkaarloo askan bi wax leen ay argument président bi nga liir ko nga dem sa yoon c'est-à-dire dafay poser problème ñooñu duñu ay xale bu ñu infantiliser nit ñi document document document yaakaar naa ni aussi euh, dañ koy dañ koy dañ koy partager ak ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñoom ñooy euh, ñu nekk ci ci euh, Mm-hmm. <laughs> waaw ñu nekk ñu nekk ci commission bi ñu liggéey liggéey bi beneen bu ma dellee nag ci li nga xamante mooy discours euh, Ousmane Sonko bi man j'ai trouvé quand même quelqu'un de très responsable et de très très serein par rapport ak li nga xamante mooy accusation yu ñu yu ñu porté contre moom xam nga damay dégg sax ay gars yi wax naan way dafa woote insurrection yu kenn xamul c'est-à-dire ku man am naa droit de façon individuelle et personnelle jël li nga xamante ne mooy sama droit à la résistance loolu yaakaar naan la défense est reconnue par le droit. précédent xam nga tey ji quand tu te sens opprimé. Mhm. am nga sañ-sañ nga ni kat man de damay woote li nga xamante ni am naa sañ-sañ te constitution jox ma ko mi appelé à la résistance résistance loolu waxul révolte et puis de manière individuelle boo ko defee yaakaar naan kenn mënu ci wax incitation parce que bu nekkoon incitation mooy nga invité nit ñi ni leen kaay ñu doy na waar du justice dañ ma nekk di ma tuumaal dañ ma nekk di ma teg difficulté dañ ma nekk di ma teg ay ay mbir yoo xamante waa di ma persécuté donc am naa sañ-sañu kat man ma bañ ma organiser sama résistance maintenant bu ma daanelee rek foofu bu mu mënee daaneel foofu rek nee na parce que dafa am leen lu ci nekk lu doy waar Ousmane Sonko a été déjà condamné sans pour autant dem ci tribunal. comment ça comment ça. Euh, nee na Aïcha Ousmane Sonko est un Sénégalais comme tout le monde. Mm-hmm. député nekk aussi troisième ci kan euh, ci élection présidentielle bi ñu jógee. Mhm. tey jii këram dañ ko encadré par les forces de l'ordre trois accès yi nga xamante ni moom moo am ci këram. mais est-ce que c'est pas pour protéger le voisinage. dañ fa ñeneen ñu fi ñu fa nekk. waaw waaw waaw ñoom ñu ngi ñoom ñu ngi ñoom ñu ngi kaas sax ñi nga xamante ni mooy voisinage parce que gis naa benn reportage boo xamante ni ñoom dañuy ni mënatuñu am accès seen famille sax mënatul ñëw foofu di leen seet si léegi euh, nee na sénégalais nga. yow nga am sañ-sañu waxtaan ak ku la neex ku la neex ñëw sa kër ku la neex wax foo mën a jóge yow dañ la porter plainte demagoo sax wuyu ji ñu jël autant d'éléments teg ko sa buntu kër ay oto yoo xamante ni tey jii ñi ngi taxaw sa buntu kër tey kii jàll di seet Ousmane Sonko dañ leen naan da ngay taxaw woo protocole bi bu protocole bi ñëwul tey jii doo jàll dem seeti ko. mais xam nga dafa amoon ay parce que bu nekkee ay manifestations. ba yoo xamante ne quand même euh, euh, voisins yi tey jii pour garantir leur sécurité looloo tax loolu yëpp am fa. non je pense pas gis euh, manifestation rek loolu kon yaakaar na Sénégal point bu nekk nañuy teg euh, kii place de l'indépendance amoon ay manifestation ay bien yàqu woon nañu terewul teg ko ci buntu këram loolu yaakaar naa ay violation li nga xamante présomption d'innocence la ñoom nag bu ñu jàppee que mm-hmm. ki nga xamante moo Ousmane Sonko dafa nekk coupable mm-hmm. mais loolu tey jii vraiment mënatuñu ci déggati complot affaire affaire li nga xamante mooy affaire privée encore que nan nañuy waxee ni affaire privée boo xamante ni. Euh, euh, nee ne mhm, privé boo xamante ni ma daane fa ma c'est c'est compliqué parce que ba may commencé waxee dañu ma doon dagg. Euh, affaire privée boo xamante ni tey xale bu jigéen bi dafay liggéey ci benn benn benn benn benn bërëb saleeram yaakaar naa demewul noonu elle organise sa disparition kenn mënul xam fu mu dëkk maanaam am na kër boo xamante ni moom kese moo fa nekk. wala moom appartement boo xamante moom kese moo fa nekk. mais qu'est-ce qui prouve tout cela est la nekk. waaw déggoo ñaar kon moom kay ci ci nekk ci appartement wala ci ni dama ni euh, kii euh, nee na Aïcha. Mhm. xale bi comment elle a fait pour organiser sa disparition man question lay poser. comment elle a fait pour tey jii am ay avocats yoo xamante dañuy ñëw taxaw tey jii di dañuy assurer sa défense. Mhm. boo jëlee ñi nga xamante ñoom ñoom wër dossier am am na ñoo xamante ne c'est du c'est des ténors du barreau mm. ñooñu seen service yaakaar naa duñ ko def ci gratuitement comment elle a fait pour mën a assurer boobu tey nekk ci benn bërëb boo xamante ni ñu bëri dañuy naan mi ngi fa wala neew fa donc autant de questions et puis à 23 heures nan ngay ci salon de beauté benn plainte boo xamante ni bu ko liiree nga xam ne lii c'est un technicien de droit bu ñu mënee dafa demoon police bindu ji ko parce que yaakaar naa ne couvre-feu am. te yaakaar naa aussi boo demee 22 wala 23 ci benn kër boo xamante ni waroo fa mën a avec un bord au médecin. est-ce que yow tamit da nga jàpp ne que les dés sont peut-être jetés tey jii nañ incriminé kii di Ousmane Sonko. waaw euh, xam nga bi ñu lay xel dañu doon jàngal fable de la fontaine le loup et l'agneau <laughs> la est toujours la meilleure. est-ce que le loup qui avait emporté l'agneau Karim est-ce que le loup qui avait emporté l'agneau Khalifa Sall ce n'est même pas est-ce que c'est pas le même loup qui va emporter l'agneau Ousmane Sonko c'est-à-dire man li ma wax fable de la fontaine la nag parce que fable moom tudduma fi kenn loué l'agneau laa wax bu ñu jógee ci loolu je vais pas être là sur des trucs de procédure des procédures de l'Assemblée nationale ça ne m'intéresse pas parce que avant j'avais tantôt moo gi fi am yëpp a yam crise politique yu mës a am Sénégal Mamadou Dia bi ñu ko bëggee faagaagal ci assemblée lañ jaar euh, yàgg nañ fi def yu ne ci biir assemble et d' ailleurs faleelu bi moo posé problème moo tax chaque jour dañuy am député bu naan la man député Ablaye Wade laa wala ngay am député buy toog assemble naan daaw dama ne woon lu ki bëgg ne waaw loolu laay def je ne cherche pas à savoir ne waxaat naa ko daaw wax ko ren jig na ma donc man gëw ma assemblée nationale boobu parce que ci bindin bi. départementale ak national ak nañu tànn seen national donc pour man loolu yeneen réforme yu ñu war a dem à l' avenir pour que ñu am ay député yuy taxaw député boo xam ne am na sañ-sañ li ko pouvoir am may parce que légitimité bi ko askan bi jox mu mot ko sëkk bu ñu paree foofu euh, yaakaar naa ay waxu procédure ay ado guddal jéela la ça devait passer comme lettre à la poste et ça passe par lettre comme à la poste Abdou Diouf disait que euh, une majorité sert à quelque chose Sénégal nu ñuy falee bu ñu ma falee président dañ naan jox leen ko assemblée ndax mu gouverner donc assemblée boobu nga xam ne Ousmane Sonko bu fa mësoon taxaw bëgg a jël kàddu ñu ñëw këf micro na ko sa temps jeex na wala ñas na leen taisez-vous assemblée boobu bu ñu leen joxee paaka pour ñu daas ko loolu jarul sax ay nekk ci procédure beneen bi man yaakaar na euh, wax ji lu muy bëri bëri yëpp coow lu muy bëri bëri daa am loo xam ni bu ñu ko waxee foofu la nit ñi xalaatee jaan bi watatu woon Matt Karim Wade ñu naan bàyyi leen justice def liggéeyam nan la mujjee sur vingt cinq dignitaires yi ñu incriminé woon kenn leen ci tëj kenn leen ci génne bitim réew ñeneen ñi gisuñu procès ñii def nañ leen ministre ñii jox nañ leen ay PCA wala et cetera Khalifa Sall sur cinq cent cinquante sept maires bi ñu ko visé lijjanti ko d'ailleurs élection yi lañ bëggoon régler mais fii man mhm. principe laay wax man man je m'attache sur des principes démocratique c'est mes valeurs fondamentales parce que pour man néewal doole mhm. bëgg a nekk roi des arènes te benn mbër du jàkkaarloo kenn taxaw sa man lool laa ne bokkul ci li ma xalaat ci démocratie beneen bi euh, je crois que ba fi ñu toll ñàkk a maandu man je le dis Cheikh Omar ñàkk a maandu weesul ma lan moo xew ci biir salon ak lu fa xewul bu ma kenn waxati c'est un problème privé ce n'est plus devenu un problème privé c'est un dossier politico-juridique et d'ailleurs Euh, sooy seet Ousmane Sonko depuis boobu depuis le début il parle de la thèse du complot peut-être maître euh, man duma avocat mais moom dina ñëw peut-être wax ñu ci code pénal article 73 buy wax ni mm-hmm. complot mooy plan bu ñu nas mbëbët ko jëmale ko ci nit pour faagaagal ko bu fekkee loolu am na ñun liñ doon xaar tey ñu amoon justice bu équitable boo xam ne nit ñi duñu ko ragal justice boo xamante ni bu la woowee bu dee yaa am dëgg soo demee mu leer na li kenn du dëpp dëgg dëppandi dëgg xañ la dëgg mais tey Ousmane Sonko man démb bi ma seetaan boog laay wax je vu que posture bi ma am il s'est je j'ai vu quelqu'un qui a lancé un appel au-delà même de son parti PASTEF il a appelé les Sénégalais mais ban sénégalais ñi gëm ni moom jàpp nañ ni war nañ ko soutenir ci lii est-ce que ñeneen sénégalais dinañ répondre est-ce que Ousmane Sonko il aura la capacité de mobilisation aller au-delà de son parti mobiliser ceux de Khalifa ou ceux de Karim Wade à sa cause ensuite wax na ko euh, Macky Sall mën na ko jaay doole parce que tout simplement aujourd'hui la violence légitime de l'État Macky moo ko yore l'appareil d'État Macky moo ko yore assemblée nationale bi li mu fa bëgg moo fay jaar justice bi aussi ñu wax ko ñu bañ ko wax 31 décembre dafa ne am na dossier ñoo xamante ni bu ñu naree yëngal réew mooy activé mooy désactivé et tant que waxuñu waxu procureur boo xam dafa dépendre ci un ministre de la justice mu nekk un partisan nekk un militant bokk ci benn parti képp ku ñëw da nga ko utiliser donc tey Ousmane Sonko rapport de force politique la woote et rapport de force politique boobu nag waxoon na ko bële passé mortal combat c'est un combat de gladiateur. est-ce que Ousmane Sonko dina génn situation bi wala. est-ce que dañuy jaar moom fi ñu doon jaar ak moo xam boom la xañ la say droit xañ la sa liberté ak say droits civils et politiques. la laata may retourner ci ci ci invité yi ma ñëw ci professeur euh, professeur euh, dañoo gis ne que euh, dañoo wax waxu pandémie mu plonger le pays quand même dans bu xaw a catastrophique au même moment tey ñuy wax waxu mœurs alors ce que lii jaar na tey ji ñu cristalliser tout un peuple cristalliser tout ça justement et ne pas se préoccuper ci lii di économie ak yeneen. yi fi yi fi yi ñu war a régler des priorités entre autres. waaw xam nga peut-être je vais dire comme l'autre par où commencer parce que y mm. de débats. waaw man euh, bala maa répondre ci loolu man suma conviction mooy l'Assemblée nationale je ne parle pas de la treizième de la douzième de législature en tant qu'institution mosul siggil Sénégalais yi mosul siggil Sénégalais yàgg nga ma dégg ma koy wax à chaque fois Moustapha Niass moo ko bind mi ngi nii c'est le président de l'Assemblée nationale à chaque fois qu'on a voulu tuer quelqu'un entre guillemets on passe par l'Assemblée du Dia c'est l'Assemblée mm. Abdoulaye Wade li mu souffrir ci Assemblée nationale moo Ousmane Ngom nit du ko souffrir Abdourahim Agne da daan taxaw Abdoulaye di wax mu naan regarder l'opposition avec ses yeux globuleux Ousmane Ngom mer génn Abdoulaye Wade mer génn les députés Ablaye Wade bi mu ñëwee pouvoir jël assemblée bi dugal ci poche am Macky Sall mi nekk président de l' assemblée toogoon na ba nga xam ne le cinquième président du Sénat moo ko ëpp pouvoir et c' est le président Abdoulaye Wade qui a fait ça. kan moo jëlee mandat cinquant cinq ba un an c' est pas les députés yi moom mosu ñoo nekk vraiment kiiraayu Sénégal. assemblée nationale sax dañ koy wax par simple habitude linguistique mais ce n' est une assemblée nationale beneen bi mooy. bu ñu leen doon pale te amul raw gàddu ñu bëri ñu ngi nekk député tey du ñu mës a dégg député ci kaw suuf. beaucoup de députés ne sont pas des députés du peuple. des députés. y a un ministre Alioune toog ñu wax mu ne je suis le député ab Ablaye wàdd am na ko taxaw barki démb assemblée ne lu ma Macky Sall wax ma woote ko. Mm. kon député moom jarul sax tiitaroo. parce que à la limite. tamit jar na ñuy globaliser. Euh, euh, jël yëpp jeté ko ci assemblée nationale est-ce que tey jii waruñu wax que une partie peut-être des députés. nee na man su may analyser. Hmm. toujours la ngeen di dégg ma koy wax. man su ma jàng mayuma may analyser ay weccet man système lay analyser système. comme quand je dis que la police est violente par système je le répète or il y a des policiers qui sont corrects mais par par système policiers dañuy yuuxu nit ñi di leen door parce que nit ki système moo koy gouverner ce n'est pas la conscience qui gouverne le système c'est le système qui gouverne la conscience donc assemblée nationale moom bu fekkee am na bërëb boo xam ne bëri na gàcce ci Sénégal gàccaay Sénégal assemblée nationale la bien que gis nañ ci façon député bu baax bu ne papaay Cheikh Bamba Dieye jaar na fi Cheikh Bamba Dieye jaar na fi Iba Der am jaar na fi eh, ñeneen ak ñeneen jaar nañ fi mais dañuy def différence bi la majorité a toujours été à la porte de l'exécutif toujours beneen bi may wax mooy est-ce que jar na ko jaru ko si xam nga lu tax mu jar ko dafa am benn paa bu tudd Alla Kane il a 73 ans aujourd'hui 63 ans il fait partie des premiers militants ñooñu nga xam ne dañoo dund fekkuñu leen di leen jox ay privilèges ils se sont comme aurait dit Sartre mis la main dans le boue et le sang dafa bind benn texte mu ne xam nga wax ji yëpp lu ko indi ñu ne waaw mu ne ce qu'il appelle la bu Sonko aujourd'hui les gens ils dorment pas parce que ils savent que Sonko est très bien parti mm-hmm. parce que histoire moo ko wone Sonko est le seul aujourd'hui qui à son âge à son âge 74 la juddu laa dégg ñuy xalaat na mun na nekk président de la République Senghor bi muy ñëw passé na âge boobu Abdou juuf dañ ko koo yekkal ci palaat mu téye ko nangu ko ci Ablaye Wade 88 nangu ko ci Ablaye Wade 94 Ablaye Wade bi muy ñëw presque fekk na mu nekk mag Macky Sall nekk na nekk na ci ay année lu nekk mu doog a ñëw Sonko nag en deux ans. il est passé de 1 virgule à 15 défendre ma ko je ne suis pas sonkoïste gëmuma sonko j'ai jamais voté pour sonko mosuma ko gis mosuma ko bind il m'intéresse pas c'est la vérité ki m'intéresse damay wax fii toujours ne leen man suma position xam nga lan la mhm. bi ma juddoo ba tey salaire bi ma am état Sénégal moom ma koy fay mosumaa lekk xaalisu kenn mosumaa gis benn président de la république te lépp lu muy laaj pour nekk député wala ay ministre nit ñi am nañ ko mais c'est parce que dafa am xam ne boo fa tollee soo mënul tàccu mënoo am impartialité doo jàll dafa am ñoo xam ne ils ont fait le choix. beneen bi nga xam ne nii dama koy wax nga wax léegi affaire korona bi. Mhm. man damay masawu sénégalais yi. et le doyen Alla Kane wane ne aussi aujourd'hui li ma di jóob doon wax létat état gouverne par diversion. du maki Sall de c'est l'état qui gouverne par diversion Ablaye Wade était le champion de la diversion ñu ko doon wax signalé gauche dem signalé droite Omar Faye il faut ma joxaat la ko parce que loolu mooy dëgg nga encaissé ko rek sama waay nga Macky Sall kenn waxul ay mbiram waaw yaa ngi dégg donc diversion boobu noonu gañ ko teg ma nga xam ne tey bàyyi nag nga eggale bàyyi jaamur waaw bàyyi ko nag ah ba nga xam ne léegi mhm. li waa ji doon wax aas ak os tax nañ kenn déggatul xam nga aas ak os mhm. Ousmane Sonko ak Adji Sarr mooy aas os <laughs> est-ce que os moo ñëw. dal ci kaw aas ou bien aas a ñëw ne os loolu ñun ku ciy wax ku de da wax lu la neex. wala nga dëgg xët rek. da ngay wax li la neex nii man ku ma ci tegoon. ah ah. position dégg mm-hmm. ma. man de professeur dafa wax yow bàyyi bàyyi xaaral ñu terminer parce que ñun bu ñuy wax dañu dagg donc il faut ñu bàyyi ñu ñuy wax damay wax souvent ni nit ki soo ko daggee. ki koy déglu dafa am koo xam ne daf koy mal comprendre et moi c'est une centaine de personnes qui t'écoutent aujourd'hui ton raisonnement kon bàyyi leen dem rek daf ci am solo beneen bi li may wax mooy aujourd'hui Ousmane Sonko il est très important Adji Sarr nit la elle est très important mais ce peuple là de Guédiawaye du Saloum qui meurt ce peuple bi nga xam ne tey boo demee Guédiawaye à vingt et une heures Macky Sall na leen tëddi leen xoj économie bi gis nga loolu bu ñu ko comprendre maître on n'aura rien compris de l'histoire tout à fait en train de tester ils sont en train de tester la capacité de résistance des peuples mm. te toujours dama koy wax li ñuy def nii yëpp dañu koy imposer mais c'est un faux débat affaire Ousmane Sonko ak Adji Sarr jarul woon théâtralisation mbir mi xam nga mandat depo mhm. da ngaa woote insurrection da ngaa détourné loolu c'est pas facile à prouver mais da ngaa yegg ci kaw xale bu jigéen y a rien de plus facile surtout pour un organe un organe de le prouver jot nañ mhm. benn man xaw ma ay procédure mais li ma mën a xam mooy j'ai l'impression que li ko talaa doon waxee bu fekkee ñeneen ñi la dafay am fast track mhm. li maître expliqué mhm. man xam nga lu ma comprendre wut juge bi euh, procureur bi bind na mhm. porte plainte contre x oui jox ko le juge d'instruction mais le juge d'instruction c'est là où le jeu a été biaisé il n'a pas pris le temps de l'enquête bu ñu jaxase affaire yi Ousmane Sonko mënoon nañ ko bàyyi ak humilité am mais mais mais tuuti ma eggale rek mais avant ñuy enquête est ce que duñu déglu Sonko ba pare. waaw mais moom laa lay wax foo ma ba non boo ma bàyyi di ma déglu. non nañ ko bàyyi man bu ngeen. leen di topp dama leen di bàyyi wax. waaw waaw waaw réquisitoire rek lépp xam nga Omar Faye. Omar Faye may topp Omar non non waxtaan bi. il a posé une question dinañ ko delloo dinañ ko delloo maître. ñun ñëpp mm-hmm. xam nga dem fac droit jàng. wala nga dem fag lettre jàng. lii aussi mun naa xam parce que li ndaw si wax ñëpp am nañ xel. Mhm. dama ni. Mhm. ba mu jëlee réquisitoire ba. Mhm. jox ko ko. juge d'instruction bi. dafa waroon jël temps def enquête bi. ñu bàyyi Ousmane Sonko bu demee ba nga xam ne nag am na ay éléments qui signifie que x tel que x s'identifie à Ousmane Sonko bu boobaa mu ne lever leen ko mais bañ koy lever il y a aucun élément. de ce point de vue beneen bi nga xam ni dama ko bëgg a wax. nit ñi nañu dal. c'est important bi ñoo ko bokk mais am na ñoo xam ne nii tey bu metti woon ñu génn réew mi bàyyee ñu ko parce que ils sont là entourés bien gardés au moment u ñu këf leen génne leen yoon bi ñun ñooy nekk ci mbedd mi di sonn. li may wax mooy. li laay Mbow wax tey. borom xam-xam yi di ko wax rek moo fi nekk que le droit soit dit mais le problème mooy aujourd'hui Omar Faye di wax naan pourquoi warul am débat dafa war a am débat parce que dès le a été biaisé les gens ont que c'était pas normal il faut que ñu honorable euh, euh, dañoo gis ne ci discours euh,